ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi jullit war nañ ci sant suñu borom ñu ngi koy baax di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi ñaan suñu borom mu fekkee dot ci waame xéewal yonente boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu si waat nañ beneen yoon ci doon keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom yi xam ngeen ni ay góor gi noonu yu mag ak ay jigéen yoo xam ne suñu borom moo leen tànnal boppam ngir ñu war a nekk saxaaba yonent bi alayhi salaam ñoo ñee ne xeet ñoo ci gën a baax ay xol ñoo ci gën a jub ñoo ci gën a dëggu ñoo ci gën a sell ay jëf ñoom sax nag dañoo amoon gërëmal seen borom ñoo koy jugee radiallahu anhum ñii day laqad kaana fi qasdihim ibra moom di waxtaanee seen dund day ak waaroo yi leen fàttali bokk na ci li gën a mën a nangu xol rawatina xol ku gëm yàlla mooy di ko fàttali ña nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ci baax ak bu mu mën a toll rek su ngeen soo xool ñoo ne dafay xeet moom te loolu wér la loolu ahlu siyar xam nañ ko yi nga xam ne ñooy tax ahlu siyar ci seeni baraagam yooyu li nga xam ne nii dafay xool ci raw boobu du am àll ci kanam la ko waral mooy saa mu xoolee jiw maa raw rek dafay yokk mu commencé seen defal di dox daal di dénkal dénkal waaye saa boo xam ne yaa ngay xool ca sa raw rek kanam loolu dafay nekk courage bu lay doon day tax nga gën a góorgóorlu day tax nga gën a faatu xam ngeen ne niitukaay bi gën a wér te gën a wóor mooy niitu ci saxaaba yi doon la xaati ak taabiru yaa taabiru taabirin ila yawm bu ñu fàttali ko suñu bind bi weesu ñu nekkoon ci dund soxna su màgg ñu soxna yi nekkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ummul fadl ummul fadl wal fadail lu baax la bint al xaaris xam ne ummul fadl mooy yaayi Abdullah ibn Abbas di soxna sa Abbas ay yonente bi di bàyyi ci Xaalid ibn al-Walid di mag wala mag bi ci Maymuna sax ma yore waxoon naa leen mbir yi nga xamante ni Maymuna wala Ummul Fadl dajal na ko ci ay gëneel ay xàngal la woon ci Xaalid ibn al-Walid. waxoon naa leen ni Ummul Fadl moom moo jur Abdullah ibn Abbas wala sunu bind tey bi dana xaw a wàcc tuuti mën a jëm tërul dañoo ñàppee dañuy tàmbale ci Abubakar Omar Usman ak Ali suñ paree dem ci kibaaru saxaaba suñ paree doog a ñëw ci kibaaru saxaaba ndax magi saxaaba yi tàmbale te ñoom doog a ñëw ci gone saxaaba yi loola moo nekkoon suñu doxalin la tax ñu wàcc ko tey nag mooy ummul fadl liñ doon waxtaanee ci bind bii weesu moo jur Abdullah ibn Abbas kon dana méngoo lool dana rek ak bind yi nga xam ne def nañ koo wax ngir ak dëppoo am ci ay mbir yu bari ndax ma tëb mën nañ ma tëbul daal di jël ko am lay am na te fekk am na naa ci lay la lan la war a mën li ko war a bind def mooy Abdullah ibn Abbas umul fadl bi ñuy waxtaanee mooy yaayam te bind naa ak lépp ci Abdullah ibn Abbas ak ni ko yaayam amee kon bu ñu ko ëndee bii dafay ñeent ñaareel mooy Abdullah ibn Abbas ci gone saxaaba yi la bokk waaye kabiir mu sabri inda Allah li annahu min al-ulama nekk ñi képp mën naa nekk gone ba noppi nekk mag loolu la wala dana toog dana mag toog wala nopp day mag toog ndax lépp da dafay nekk ci ay daraja yoo xam ne ay atam yéegu ko te fekk loolu xam-xam moo ko yëppee moo tax imaamu Maalik moo ko ñaata at la am dina loolu soxla laa nga leneen ah wala saa nga ay ko boo nekk waa ñaataat nga dina yàlla nga ni ne loolu jëru plan nga ne ko loo xam ne sama sëriñ ko naa ne boo ko mësaa laaj ñaata am ngaa mën jëru ay at mu borom xam-xam yi ne amaan na jamono ba ñu koy laaj la yaa nga bëri te doomu aadama di ñëw gaaw a ngay laaj ci ay at fekk mbir mi du loolu waaye mbir mi nit ki mën naa gën a ñëw ay at fekk dund la loo xam ne borom ñu la ñëpp si xel te am na yaakaar bu ñuy lim dañ koy lim ci bëri xaaba yi waaye bu xam-xam yëpp tey dañ koy lim lim ci bëri xaaba ndax abubakar ak omar ñoom bis boo xam ne dañ ko xoo ala la jëm ci suuf moom dafa jàppee woon abdullah ibn abbas bi ma la koy firndeel mooy bu mosaan am jafe-jafe day wax abdullah ibn abbas bi ngay gis te nekk ba nekk ndaw nga xam ngeen abdullah ibn abbas bi yéen suñu faat bi la fexe ba ñett bu yéen suñu faat may dafa dara ci fexe ba ñett xam nga ni kon bu la omar ne woo naan la kaa ñu giisoo ani wala mooy day am إذا بتقليد الأرض والغمير سلوك الأرض في حركة حسنه كثير في تقليد القرآن العظيم إذا كنت تتقلق معه يجبني القرآن الحكيم لو يجيب كل قرآن كبر أدوان في بيان الجيكون أجنجان كليس أم مكري أكوك ريكي مرحب يفك قريلا قريلا ومن أولا تنجيني سلوك الأرض سيدونك وكيان تقريد حركة لا شك لحقين بومي والقبول من الله سبحانه فرعي ذلك عبد الله بن عباس لقد مولى ينسب وقال اللهم فقيه في الدين وعن التسليم سبحان كي ليال الكتب الوجيه ها يا خمسة يقلو قدر يال الكتب يقلو جيه يا خمسة كفين القرآن سبحان الله ينسب لي يلي يعني حاول لن لو أي كلمة يرتب يفعل Abdoulaye ibn Abbas lim dara waxtaanee dund nee na fekkee na am néew ñu di ko jullee yonent bi di ñaax di ñaax di ñaax ba nga doomu ci maanaam kii daw la nit nekk man man ma dee dëgg boobu ndax moom ñaax ndax mu ne la yonent doon ñaax ñu ko yéemee alayhi salaam mu ne kii dëgg moo war a gis nekk man man ma dee ma dëgg rek man maa moom ñaax ñaanu yéen sax man xam ngeen mbokk yi kon tey ñoo ngi waxtaanee Abdoulaye ibn Abbas waaye mbokk yi ñoo ngi waxtaanee xam-xam Abdoulaye ibn Abbas bés bu tuddee rek laa ko kenn tudd nañ xam-xam mbokk yi xam ngeen ni xam-xam mooy li gën a rëy loo xam ne doomu aadama am na ko ci lay yàlla yi kon ci fadlillah wa rahmatihi wa bi dalika fal yafalu huwa xayru mimma yajmaun su borom ni bi fadlillah li leen yàlla yi defal ak gën a xam-xam ak jëf ورحمته أكرم لي يا الذي تغفر لي خلق مسجد ولفن يفرح في الوطن إنه من أنبي على علم المسجد الأولون هو خير مما يجمعون أرجع وبالفوق لي لإلك على الله لكن هل أنت في دروس ينقل وقت عليك أبي طالب وقل نورا لسمين بوقت أكثر mu ne ko Kumayl ihfaz ma aqulu lak mu ne ko Kumayl mu ne naam mu ne ko Kumayl déglul li may wax bu baax Kumayl di ko déglu mu ne ko annaasu salaatatun gis nga doomu aadama yi ngay seen ci kaw suuf mu ne nit ñi ñett ñett yëpp lañ nee na ko saxaabimu rabbaani am na waa joo xam ne dafa jàng ba jàng njëriñ mu nekk borom xam-xam ànd ak ak ragal yàlla ñu toll boo xam ni fekk na rabbaani yi te loolu su borom doon dikk mooy pour rabbaani yi nag naa kuntum tuallimuna al kitaaba wa ma kuntum nee na kenn ci mooy kooku keneen ci mooy aalim mutaallim mooy koo xam ne borom xam-xam waaye ba léegi ñu ngi continuer jàng day xam ci dara jële mooy deuxième position bi nee na ala sabilin la jaar moom mi ngi wër fu mu jaar ba mu ci moom mbokkam la dal ba dama koy jëriñ يقول منه ولد رعاه أتباع كل نعم من عمل جاي رقم الدين يوم ها لولا بكل أرقم كتبا والله يقمن من ذلك سعر سعر سعر ملحل مطلع مدار كلنجاو مجاز فوار ويلي كل شيء يواجه ولأنه وكأنه من أسماء أول الناس وقلوب يتصف بنا روايته تتغيروا ليميلون مع كل شيء يرون الكفر من الجبال فقد boo jàngee nga xam da ngay lekk ñu def nga melokaan woo gis ñu dëgg ko waaw waaye lekk baax bi lay taal ci yow dëggal moo ko taal waaye nag ñàkk gee baax lay taal ci lu baax ñu ko ci def baax moom def anam kay sa ngëm yàlla nga dëgër ci bopp sa pas-pas bi nga dëgër ci bopp sa iman bi nga dëgër ci bopp loolu kay lu baax ak xam ne yaa nekk ci dëgg nga tax ci dëgg ci bopp kay loolu baax waaye nag léegi max mu dara léegi laa xam ne yàlla na yàlla koy ubbi noonu ay ñoom saxal mu sa bopp parce que ñoom ñii duñ ci ñii dañ am ñoom xam-xam ñii dañ leen ah mu ne wala yantahu ila ruknin wasil ñoom ñii mu ci borom gëbël am na waa ji leen rëcc ne fekk dama dugg ci dara bu fekk ne la moo gën a yow li ngay ci fekk mi ngi toog ci benn photo bu dëgg wala sant bu dëgg xëcc ba soxla bi ñëw parce que li mu fekk ay tànkam moo dëgg Allah waxtu bii sa ngi yoo xam ne lépp sa dugg naa islam ali ni ko ku may mu ne ko al ilmu xayrun min al maal xamal ni xam-xam moo gën alal lu tax mu ne man ilmu yaxrusu xam-xam da lay garde wa anta taxrusu lmaal yaa garde alal ci allahu akbar mbokk yi kii la baax xam-xam kii am alal kii moo moom xam-xam kii moo moom alal borom alal moom mooy jéem jéem alal alal bi di ko sàmm di ko wax di ko garde waaye yow xam-xam bee lay jékkal di la gaari bi la loolu mooy jëlee xam-xam moo lay gaari moo lay jox valeur moo lay yëkkati boo yëgul mooy def nga xam yow lii kat kii moo yegg lii moo ko waaye xam-xam rek la ko yóbbu muy yabdu alma al al ilm yabdu al amal wal maal yunqasuhu nafaqa la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi ñaari ñi ñu taxaw kenn ki dafa xalal kenn ki am xam-xam dafa ne li borom xam-xam ci def ci xam-xamam borom alal bu ko def ci alalam nga ñàkk am dama ne li borom xam-xam li def ci alalam ci ci xam-xamam borom alal bu ko def ci alalam nga jeex yow su ma yaa ngi jàngal parce que yaa ngi jàngal ngoon yaa ngi jàngal dañuy jàngale lépp ci bopp lay génne def te lu dem nga dellu ci waat loolu bu ko borom alal ci defoon nga jeexal ngay yow xam-xam muy jël alal ngay yow léegi tey moom day jeexal te yow la gën a yor ndax xam-xam suñu war a mën di def boobu baraka mooy loo gën a jaxee day gën di gën a yokk donc alal la def loolu waaye nag moom yaa ngi nekk ànd ak moo tax mu ne ko day kaar jëral am alal kay yee nañ xam nañ leen waaye mu ne am na ay borom xam-xam yoo xam ni wala am nañ borom alal yoo xam ne ñu ngi dund ba tey waaye kenn xamu leen waaye am na borom xam-xam yoo xam ne baaxul nañ te daawaat ngay jël waaye ñi ngi mel ne ñu ngi dund ba tey boo tuddee seen dund ndax taxaw ñett mel ni ñaan nga yàlla xam misaal bi dara ngay defal mooy mu jaal mel ni saa bi sa bëgg ñu tudd bu rafet nga xam ne saa bu ñu tuddee na ngay ngeen am sax xam nga ni xarit ma yu ñàkk ya saxaaba ya abu hurayra ñoom abu darda abu darda ñoom tey wala ci dana ñu ne ñu nit loolu xam-xam moo leen ko def kon laa tax kañ waxtaane tudd abdoulaye ibn abbas mooy waxtaane comme ni xam ngeen ci bind nii waxoon naa ay ngëneel yu bëri seen ci kumbul faxul waaye ngëneel yooyu bu fekkee dara ñii lay jëriñ jigéen ñaa ko moom wala day jigéen ñi foofu lay jaare muy xool lan lay def ba mën a am doon bu baax te loolu moo nekk tamit seen seen soxla yi mooy am doom yoo xam ne aalimu rabbaani lay doon loolu nag liggéey la di jaage di bëgg am doom rek am doom rek déet déet kumbul faxul dafa dajale ci ay ko doole ak taw dee ci suñu borom la tax ñu am la am xelam lépp li ma fi suñu borom may la ñu xam naa dañ def tey bi nag léegi dem ci lii nga xamee ci ni mooy Abdoulaye Niang ah waaye nag ci ñun la jëm ci la jëm ci waa ñu law xam xam ngeen Abdoulaye Niang ah doole la woon lool waaye suñu borom bi ko xelalee léegi nag mbokk yi bind bi dafa war a defaat suñu ak doon ngeen ko war yëg-yëg di kontaan ñu sàkku xam-xam mbokk yi fu mën a xam-xam màkk bi di ko suñu borom teg شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما به. وقد قال يعلم سبحانه وتعالى لا يلا سبحانه وتعالى هو المسير قل شهد الله يلا خيرا لأنه لا إله إلا هو أبو الجنة ورجع الله. ولما قال وأقوم سيرا mu ne wal malaayika du malaaka yi seede nañ ko waaye bokk kon doomu aadama yëpp dama nekk yàlla tànn suñu seede bu waxul laaj loolu loolu bokk ci masal bu kale muy bindin yëpp yi su ma am seede xanaa dina évolution dafa jël malaama yi ci seede su waa ñu suñ suñ bu dee ci nit ñi tànn ak borom xam-xam kon ku la fi borom xam-xam rek moo tax la am naa ibn al-qayyim rahimahullah ci téere bu am solo boobu bu tuddee ci saaxu daari taala ah ci dina ko lu man téere nag am leeri tomb yoo xam ne benn bu ci nekk day wax njëkk moo te delloo ñu ngi wax ni kon bu yàlla mu la tànnee am am nit ci biir nit ñi yéen ko xam ne malaaka yi bu ñëw fekkee téere suñu borom la muy wane mooy kooku suñu doom ak nit yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku ni raar wa ikraara malaaka yi malaaka yi suñu borom yi si juutal aara alayhi salaam li ajli ilm malaaka yi am di wumi al ah am di wumi al may haawuna illa ilmana illa ma am lam tara aadama am di wumi asmaihim li kalam ma am da amu man kare ma teraanga jooju ayna takrimatin ahsam min sujudi al malaikati li aadama xam teraanga moo gën a rëy malaaka yi di sujud al aadama moom it est-ce que xam nga ne xaj bu am xam-xam sax day am gënal dañuy am gënal yow yàlla xaj bu am xam-xam الله أكبر الواقع المكملين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما علمكم سبحان الله وأما أحمد يقال سبحان الله بتعمل بنير إليك تقول إذا لم تكن مرة مسلمة وتعمل برد لي حرام دوما يقال parce que xel bi suñ ko jàngale mooy amul lu la tuuti léegi xam-xam yi la kon xorma gi ñu ko jox li ko may mooy xam borom xam-xam yi ah fekk bu am xam-xam bu bokk na dugal borom yi la am ba ñu may ko mu mën a jàpp jox ab bi mu lekk ci lan ko may mooy ko bu kenn ni na lu ànd yi mu la dund da ngeen leen a jàngal ma xam da ngeen jàngal teewal ko jàngal wax jàngal sarax jàngal naan jàngal buxaari jàngal dëgg la jàpp waaye maanaam loolu xam-xam la rek xam-xam boobu lañ ko xormale doon ay morom moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax ni malaaka yi dañuy sàllal laaf seeni laaf di jàng xam-xam bi ci jëm wala tey boo boo seetloo sunna bi tey ci salaf jóge ci salaf sama bi nekk ci ñun kenn ku ci nekk ci ñun la koy tawaat waay gën a wax lan ci liggéey day daal ñu toog di naan ataaya moom mën nañu di daawul bare bare bare bare xanaa ne xanaa ne ay ay ay ay kii ay affaire yi seen mbooloo bala mu tudd lan lañ ci am deux heures de temps maanaam yenn imaam yi wala yenn tool yi koy tànn gis mën nañu tax suñu sang bopp yëpp ci gàttal ci waxtaane suñu biir ay àddina mën nañ cee yenn ba ngoon def taal ataay wax ak di wax lu ñëw di jël pour wax lu ñuy yàq di fekk moom man mbokk yi lu xeet lañ loo xam ne moo li gën a riche ci doomu aadama gis nga ngeen mën a xam-xam bu dee ci alxeer ah moo gën a riche ci say baane ci ñuy jaamu ak yàlla yu pare waxoon naa leen moo tax Iblis alayhi laanatullah borom xam-xam rek la parce que li muy yàq moom Iblis wax biñ ko laajee kenn du gën a fañ dafa tudd yeneen bi koy wax ku ne toog mu ne balaa am borom xam am borom xam li nga xam ne mooy borom xam-xam day day leeral li muy leeral loolu moom mooy yàq li muy yàq bu ko defee yoo xam du bari ay mbooloo. kon Abdullah ibn Abbas xabrul umma tariqul aql turjumaan alquran imam tafsir muy Abdullah ibn Abbas ibn abdi rasulillahi sallallahu Abbas di bàyyi ci yonent bi mooy bàyyi kon Abdullah ibn Abbas doo bàyyi أم الفضل أم الفضل الفضائل لبابة بنت الحارث والنوم موجود أم الفضل موجود عبد الله بن عباس فلا يمسك الله له الحجاب كائن يمسح إلى عبد الله بن عباس في ميت تمي إتام لين كمر جدي في أمر بوجود إن عبد الله بن أبي وقامي من أمر دون من جاي من سيين من يم من يم من يوم الخوف من يوم الخوف إلى قصة يوم ci di problème faale la donc ñoo bokk ak yow kat mais ci or jamono jooju ci la Abdoulaye Ibn Abbas daal di jub moo tax yéen di baax di ñëw ci yàlla ñett ba xam ngeen ñetti at yooyu boo ko boolee fukki yi nga xam ne yéen bi gàttaay na ko mu nekk fukk ak ñett kon du yéen di baax fekk la bëri lool. rek naa la loolu lu mun koo xam ne yi muy nekk nekk gone nag dafa jëlee ci baayam waaye xam nga wax nañ ci bind bi weesu moom kan la woon na soxla mu doon fekkewul xam ne boo ko xool dana gis loolu la am na yaram taaru kon Abdoulaye Daara bàyyam la jël moo tax borom soo xam dañuy wax ni loolu la meloon maanaam nit ñi bàyyam la dafa ñooloon lool am saa ma kat lool am fay moo tax borom xam-xam yeeg ndongo yeeg ak i saxaaba yeeg ñëpp ko am naa ndax dafa amoon li ñuy tuddee xëy ba xëy ba mooy ak leneen nga xam ne yow boo gisee nit ñi dafa ko rus te doo xam xam ndax yow lii bàyyi ak yaakaaree ànd ak yaayam ñu jógee Makka dem Madina fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam boobu nag wala toog am diir bu gàtt rek ngay wut yàlla yonent bi baaxu alayhi salaatu wa salaam kon nekkul ak yonent bi ab diir bu yàgg ndax xam ngeen ni li mu jëndoon ci Makka yéex naa gàddaay yonent bi gàddaay na lu yàgg ba mu nekk ci Makka yàlla du dugg dara waaye bi mu dikkee nekk ak yonent bi bal na am na ci borom xam-xam yi ci àll bi yëpp ñoo xam ne dañuy wax ne maanaam nekkul ak yonent bi lu yàgg sallallahu alayhi wa sallam maanaam daanaka boo dee seetlu ay ñaari at ak nangam ci la nekk ak yonent bi yonent bi baax waaye nag jot naa am ci ay njëriñ yoo xam ne njëriñ la ko yonent bi sax dañu ko waxoon naa ci biir yonent dafa féeroon aayam ak yaayam surtout ko Abdoulaye ndax yonent bi génn na comme ni ma leen ko waxee ci biir bi weer umul fadl nee na maa ngi toll diggante ma romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne yaa ummal fadl ma ne ko naam la fay mu ne ko innaka xaarin bi xudaa kii nga ëmb nii ab xale bu góor lay doon mu ne ko ah eh yow de waa mag Madina gis nga ci nit ñi gaaw naan la yéen a ngeen dikkee bu ay jigéen rek ngeen fiy jóg xam nga nit ñi seen jaam yeeg seen jabar yi ñuy faral def mën nañoo sukkandiku di wax la ñuy wax mu ne ma ne ko jaar moo tax man soogoon naa ni jigéen laa nar a jóg mu ne ko li ma la wax ngay doom ju góor ngay am tey nag doom di góor ñu féem daane nga li loolu amee nee na dina gis loo wala di ko indi yonent bi mu taxam xam mu xatal ko yëkkati tàmbali moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga wax nga ci sunna saxaaba yi daan indi seen i doom mu jël tàndar ba yëy ko mu ànd ak ay sax bi xam nga xam ko ki nga xam ne mooy yëy nee na bi loolu amee yonent bi daal di muuñ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di ko tuddee Abdallah muy Abdullah ibn Abbas moo loolu moo indi tur bi ndax yonent bi moo ko tuddee kon Allah taala mi ngi doon bi mu ñëwee Madina ak sàkkuyu ma xam-xam ah gañe ko mu gañe si ñaanu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga mbokk yi nit si way juróom ñaanal wala sëriñam ñaanal lu biir mu def jeex te dama aadama war naa fexe ba way juróom ñaanal wa illaa ci yàlla bu baax moo xam ne bu ragal yàlla ay ñaanam mën naa bañ a nangu bu ñaanam wa illaa da sëriñ bi lay jàng naka def jëriñ ñu dañ koy xeex te bu wute nan la koy ba xeex de suuf bi ba ca soxla sax laa suuf bi ba ca soxla ngaa jigéen bu ko saanee ci moom ñaanal ko lay na jigéen ci sa kër ga bu jëkkëram kontaanee ci moom mu ñaanal ko day nangu tey parce que kon kii kàddu xam-xam di jàng alquran ak sunna kooku bu ko sëriñ bi ñaanal laa ak bi daal di waaye est-ce que def nga lu kontaan loo sëriñ bi moom ñaanal wax dama dégg est-ce que liggéey nga du la ko liggéeyal day après liggéey ba mu ñaanal kon Abdoulaye Tamba nee na yéen sa la benn bis daf maa jël xaar ma ci dund sallallahu alayhi wa sallam li ma tawee ci dana mu ni allahumma allimhu yàlla yàlla na ko may xam ñaan bi rek loolu loolu ñaan bi ñu xool ci biir ñaan bi yéen ñaan bi yéen yeneen riwaay nañu ma tax nga bii saw dal rasi wala aarige sama bopp bi la raay daal di may ñaanal yeneen riwaay Abdoulaye ibn Abbas nee na benn bis dama nekkoon ci néegu may muuna bi sama yaay bu ndaw nee na bépp ci jëndee ma daal di jël satara yi def ci ndox bi ma ci defee ndox fekk ko ci bunt bi naa waaye muy jàpp ci bët daal li ñu leen ab sol ci ci kaw la ba nee na may mu na yéen saatala daal di ñëw li mu ñëwee mu daal di laaj waaw kan moo def lii am wax dëgg yàlla dañ ko war a génne ñu tegal ko xamal ci fii tegal ko xaal yi daal di koy yombalal fii bi yéen si alayhi salaatu salaam kontaan lool mu ni ma def def ci may mu ne ni ko Abdoulaye ibn Abbas dañ wax rek xale bi ne ci biir mu ne allahuma faqihu fi diin wa allim c'est-à-dire kontaan xam ngeen ni saama ak la ñu jëfal na ko bàyyi bëgg ci xel mu nekkal yonent bi sot defaral ko dàll yi defaral ko saxala bi defaral ko yéen bi génn wax ba dëkk ni ko waaye jëlee moo ko def mu ne ko kaay mu ne ko dafa waxam loo ko doon bàyyi ko doon doon ñu ne sa waay di di la lim a lim a lim ñoo xam ne sama xarit di kay naan de baax suñu yittee àddina yi waaye mu ne ko xas xam ne ko bu raax xam ne man daal dama bëgg bu dee àddina la mel ni affaire yi yëpp réussir ci yooyu parce que bu ne ko xool furi nga xam ne yow sa àddina sa avancement am kër sëkk jabar yéen a war a nekk sa xel bi yéen si ne ko amoo ay rasaale yow amoo yeneen soxla bu dul muy ko ko tàggal li maanaam soxla ay rek allah ak rek yéen ñoom seeni mbir am garaadal bàyyi di ko nekk yàlla du allah ak rek rek yéen noonu yëpp sax ni ko aay ni ala nas bi kat mooy nan nga dimbalee mooy nan nga dimbalee sa bopp di bari mooy sujud kon loolu la ko dégg sallallahu alayhi wa sallam Abdoulaye ibn Abbas nee na benn bi beneen riwaaya la muy damaa fanaan ci sama néeg am ba ci may muuna nee na ñu fanaanee ci néeg daal daal yaayam bu ndaw ñu fanaanee ci néeg yaayam bu ndaw di ubbo may muuna nee na moom ay war guddi ma seen yërëb di julli julli ànd nee na bi ma jógee ma dem bay waaj a julli ba mu yàgg ma daal di wàccee ko naan ci dem toog li ma doon jéego dem tool bi yeneen bi daal di pare bi dañu ko wax yow lan moo tax nga ñëw ba taxaw ci man daal wax dem sa yoon mu ne ko yow ak ñi nga màggee ak teraanga bi la yàlla teel may ñëw ci seen sama tànk ci sa tey naan damay tolloo yow loolu daal rus naa yeneen bi daal di yéem ci tool bi boobu daal di koy woo bi ma ko wooyee mu daal di ñëw mu daal di koy ñaanal yàlla dolli ko xam-xam ak xitma nee na fajar booga te la yeneen bi tëddoon bi nelaw ba ma dégg sax mu ne ni kuy xaar lii laa dégg woo ko mu jub ci biir daaw loolu moo lay wax xarit ba yëpp sax nga wax ñun yorante yi suñu bët yi mën naa gëm nga defee ñu ngay nelaw fekk suñu xol yi dina parce que loola moom moo ko jàppoo sallallahu alayhi wa sallam xamal ne sax yàlla daf ma yéene defal ay taw gis gis nga bokk na ci taw gis yi ko yàlla defal mooy gis na Jibril alayhi salaam ak yéen ci yéen bi daan taxaw ak am li mu taxawee nga Abbas di waxal moom fekk Abdoulaye ibn Abbas mi ngi ci seen ginnaaw Abdoulaye ibn Abbas waroon na xool ñoom ñaar seen waxtaan mu gestu am lu muy xool li mu gestoo am lu muy xool yéen bi daal di gestu gis yéen bi pare Abdoulaye ibn Abbas daal di ko waaw yow li nga doon xool am Abbas di ko waaw li nga doon xool lan la mu ne ko man kat damaa am ko ma gis bu taxawoon fii yéen bi ne ko gis nga ko mu ne ko gis naa ko sama ñaari métier kooku mooy jibril loolu loolu man xamante ne xam nga ci li ngay wax man de bare na kon loolu man xam nga rëy la parce que gis nga nag lii da nga ci daal di xamee ni gis nga fadl am fadl ndaw bi nag fadl yàlla moo ko yore subhanahu wa taala gis nga doomu aadama yi ni ñu wuutee wallahu faddala ba'dahum ala ba'din fee na mu ni fekk gis nga rawante ci doomu aadama yi rawante fawqa kulli di ilmin alim لئلا يعلم ان لا يقدر على شيء فضلا وان الفضل من يد الله يؤتي من يشاء ذلك فضل الله يؤتي من يشاء أنا أجل أن يرسل الأقوال الجنة صوت من يدخل كل كل حمد الله من أبناء من دول ليه كان يقول لي كل ينسى بدين كل عليه الصلاة والسلام وخمني لما نجري من الضوحي يقول لك يقول لك ليه كان فكرة ما يرسل صلى الله عليه وسلم خصوصا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس فكيف moo tax léegi nag ñii tey maanaam bu ñu koy déglu bu ñu koy assuré moom gis nga imam yi nga xam yëpp yëpp yëpp lawee na ñaar du xëy mel ni ñu jëlal ko benn suñu yàlla saw yi nga xam ne yaayam moo faral wax loolu sama mu ne naa xëy nga yaay ñu ko waaw waaye day tax moom ak ci yaayam mel noonu ak mu fasu ak yaay mel mu fasu dem nga yaay tey mu ne waaw mu ne ko loolu jàng mu ne ko nangam ak nangam mu ne ko mbaa demee ko ko muy fekk mu ne ko gis nga booy jàng te doo jëfee dara du la ko jëlee yëpp lay fàttewaat waaye góorgóorlu loo jàng rek ci ëllëg mu ne ko lool sax mooy naam mu ne ko baax sa xel nekk bu ci li nekk ci kala xale yu góor yi ba ñu defaale mu ne ko sa xel bu mu nekk ci lu xam-xam rek laa bëgg ci yow xam-xam rek laa bëgg ci yow mu ne ko man sa yaay dinaay raam di la jaay dina dina ci jaay dina jox am na ñenn ñu ne ma ma turam li ma ko wax lay sànn yaayam dafa dafa dafa tukki ñaaj fi mu ñibbisee yaayam mu ne ko diw bul àndanteeg moom diw bul àndanteeg moom diw bul àndanteeg moom diw jàpp ko xarit la diw jàpp ko xarit la diw jàpp ko xarit la mu ne ko yaayam ba nga xam kuy xarit ak kuy doom mu ne ko diw diw diw diw diw jaar ci ay yoon na ah sa waay kay mënam naa suuf bi sëñ bi sëñ bi jàll nangam nangam mu ne ñi ñëw kenn ku ci ñëw rek xam naa ma xam ñu ñaanal ko rek lu war lu ci ak nga xam xamagu ko mu ma xam ne kon yii ñooy ay sopp yee ay doom kon kon yooyu yaay bu xam rek la xaj Ahmad ibn Hanbal yaay moo doon jàpp ci loxoom su mu nekk rek ku nekk Hisham ibn Ammar lam ñëwee ci imam Malik na ko daal ñu jël sax bàyyal na ko jaay ngërëm jox subhanallah mu leen jaay mu ñëw ci dara mbir naa ko yëg maa ngi tëdd yow maa ngi jàpp làpp ko xool taw la ñu ñen doon jooy ba ngoon ja maa ngi laaj ko loolu ngeen ñu sama bàyyi def ba ma jàng ko mu ne ko nag mu ne ko féré dañ ko ko la jaay ci ni xawaat wax kon kon li ci xam solo maa ngi loolu dafa daw yàlla mu ne ko waxal lu dul dafa mu ne ko xanaa nga nekk li ay hadith mu ne ko maa ngi ñu ko xaar ñu ko gëj lu def ko xaar muy ñu wal ba ñooñu ñooñu lu ñu mënoon a am ci kaw suuf lu leen ko gënal ñaar te saxaaba ya nag ba ci daal loolu yi subhanallah da ngay gis ñoo xam ne ay at juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at ñu nekk ay borom xam-xam laa borom xam nga xamoon ku ma ko nekk nga borom xam sax et loo xamante ni à l'âge de dix-sept ans lay commencé jàngale ibn Hajar ibn Taymiya ibn Qayyim rahimahullahu usul amul ci kenn koo xam ne ci ngay am ñaar mais am lu dul fekk ne yaa ngi commencé jàngal di xam di def ay fatwa di jàngale Abdoulaye Niass Baye ñii kenn la ci ñoom xanaa muy am ñaar ko ci at commencé lay def fatwa waxale ko xam-xam ne woon leen na ngeen def waxale ko lii toog yow nga doon woowaanee wax ko ne jël Abdoulaye Niass Baye ñoo bokk loola fi nag loolu yàqu mag sama ñu doxee waxati mu ngay waxati bi muus mën sol muus mën sol yàq ma ah muus xale mën sol yàq ma muy da ngay nekk gone waaye ma rek mag ma xam benn borom xam-xam ni ñu nekk di am ñoom def seen lii paas yaakaar seen finance yi lu wax wax ju am solo mu ne ana akbaru min du finnan wa huwa yakburu min Allah mu ne xam naa ni man maa ko mag waaye gëm naa ni moo ma mag moo am moo tax Abdoulaye bin Abbas Abbas boo ko mutaan wax yaa ngi xam Abbas ba ma yore Abbas boo nekk yaa ngi yore te ko ma dara naa ko njëkk a judd waaye moo am naa ko njëkk a judd mooy yaa ko tey waaye naa ko njëkk a judd bu ci ay at waaye moo am loolu li muy wane rek mooy kenn ku ci nekk ci mbir mi gëm gëm la mën nga ko alal yi leen alal yaram da ngay tuuti boo xam ne dafay ay business yu bokkul da nga yaakaar ne kii mag bu dem la du dëkk ay naab di jéemal jëfandikaay yi moo dee mu faam ndax dama doon ci yëgoon ni yéen wut ci boppam lu gën a rëy di am xam bu ko amul lu koy jaaral ci kaw suuf loo xam ne kenn ko dem dugul xam koo xam ne yow bu tuddoon ci nelaw suñu lay tëdd borom xam rek xam ngeen loolu nelaw naa nelaw bu tëddoon ci nelaw ñu koy koyante ay jiyaa sëñ bi nelaw la sëñ bi nelaw rek yéen bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla ak ay malaaka te sëñ bi nekk na biir bi mag bi ñaata son ñaata son par jour la sama yi génn ci génn ci dem ñaata junniy son lan koy bàyyi du bàyyi yow kay xanaa yow yow yow kay saa kan naa la baax rek waaw mais daal la am moo tax ñu bàyyi moo tax ñu ne noonu am suñu bopp yi gis nga ñun ñii di góorgóorlu di jàng alquran ñun la day tax xam nga la parce que ni ñuy amee ci aba daa gaaw xam nga yow kenn saa boo boo jàngee dara dina mën a am fii xaw yi ñu ci am xam nga ñu ci ko benn saa parce que arab bu nekk ci dina ko ci am arab bu nekk ci ci am alif lam mim ci am yaa ngi ci am ko jàng naa sonn jàng sonn ci am benn saa boo boo ko jàngee dama ko am mil ci am nga dox li nga amee ci am dafa gaaw ci arab lu ko ci gari di ñëw ci dara di ñëw da baye ko taxal ndax dina dina ni ndax ya ko yër léegi mag bi day ñëw fexe ba bu la fi mën na xam nga day naa doon yàlla nga jàng ne ci jàng ak jàngale ñu fexe ba doon yàlla parce que li ñu mag mooy yàlla parce que li nga amee ci yàlla arrangé wu moo tax li ñu ne dal dallatul aali ni dallatul aali dara ñu tax borom xam-xam yëpp daal dama ngeen di àddina bi yëpp xalaat rek àndal lu tax ci biir ku xam seen lan dafa neex moo tax ngay ñëw si borom xam-xam yi dëgg ci seen jigéen ci ay iñaan ay soxor ay loolu yaakaar ni war naa mën a yàq sa bopp parce que yow xaaral yow yow li gën a bañ loolu dee nga ma yàq saa boo xëy nga def ci moom gis nga loolu bu ko nit ci yëgee dafa yëg ni kon yaa nga gën a dund suñu xam-xam yéen sa alayhi salaatu salaam mu ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljanna boobu aw yoon ak xam-xam borom bi da koy yombalal yoon wi koy jëme àndal allahu akbar bu dee saa yoo la dee yàlla la ñuy jokk li wala yonent bi nga wax sa gis nga nit bu nit solo ak xadis benn xadis yi ko jàng dafa mu mokk nga dem jot li ko nga xam ne mbir la ni jiw moom yàlla xam yegg ci moom bu ñuy lim yàlla nga yegg ci yonent bi parce que jiw bu liggéey ci yonent bi ak wul ci moom yow yaa ngi xam ne ñoom kon seen li doon dem te yoon sax la nga bokk. loolu loolu bi ñu rëy rëy bi ñu rëy su ma def yarfa allahu alladina amanu minkum alladina yàlla day yëkkati ñu ñu gëm yàlla dara ñaax ba pare yëkkati ñuy tàpp xam ñu gëm yàlla bokk ci ñuy tàpp xam-xam rek ñu gëm yàlla xam kay waaye bu ñu demee premier tour ba gëm yàlla ak gëm yàlla ni ñu ko waxee gëm yàlla yéen bu defaatee deux mille jours rek lépp dañuy wax xam nga loolu kon laa soxla loolu xeex junni bi la déglu ñaata junni junni ñaata junni xam xeex bi la déglu yàlla xam yàlla dégg yàlla baal te yow fekk na amaan na sax yaa ngi sa bis nekk moom yow kon loolu bu ñu jéegee loolu rek maa la war a tax lu dul loolu saa xam Yonent bi maa ngi leen di laaw bi xayran yufaqihu fi diin bu yàlla nam mu teew yëpp daf lay dégloo diine dina yaay xam ba umul fadl gis nga moo tax tey rek li ñuy jur ay doom di xalaat dañ leen wutal mais dañ leen jàngale yi dañ leen jàngale la waaye bu ñu gis amul mu daan xalaat am doom lu ko gën a saab yëpp lépp am na dara façon yi am tey internet du woon loolu déedé sëriñ da doon jàngale toog yore ay ndongo yu ndongo yi mën nañu ma junni ndongo junni am nañu sëriñ boo xamante ni moom bu daan jàngale ndaw ngay dañoo xam ne ma maa lay wax ndax xaral nga tàmbale balaa nga yegg si mënoo ko maa lay wax ku jox bind jox bind jox mën na ko yàgg ba bon wallah mbokk yi loolu yéen a jàng xam waaye ndaw nga it ñàkk nañ mooy mu jàng wala kay mbir yi mu yombee moo tax rek mu jàng dara la saa bu formaree dëkk lay kat léegi